amaloon ko démb ci talaata fukki fan ak ñaar ci weerum décembre diggante huit heures ci suba jàpp juróom benn waxtu ci ngoon fukki central ak ñaar ñoo doon jongante lu toll ci ñett téeméeri junni ak fukk ak juróom benn sànnikatu xob lañu yaakaaroon ci bureau de vote yi bureau de vote yooyee nag euh, toll ci junni ak fukk ak juróom bés gannaaw ba ñu amalee yooyu lay jongante nag waxtu bilan bi daal di jot boobule bilan nag mu mel ni nag li ci gën a fës ñu ko foogee woon ak ni mu amee wute na 2011 téeméer boo jël fanweer ak juróom ñoo sànni woon seeni xob ci atum 2017 téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom-ñett mu mel ni nag lu gën a ndaw loolu la ñuy am gannaaw lim bu bariwul bi lu soxal organisation bi dafa xaw a manqué bu ñu sukkandikoo ci Modou Guiro nekk njiitalu CNTS. li ñu ko amal ab bés bi nga xamante ne nag bésu xëy la loolee mën na kaa wund yenn barab yi nga xamante ne da faa war a sànni sa xob sori lool moom nag muy xamle ni yeneen centrale syndicale dañoo amal ay campagne de propagande di sànni xeer central syndicale yi fi gën a yàgg jàpp ni ñu bees ñi ñoo gën a yeyoo teewul benn yoon ñuy wëy di amal seen liggéey ci beneen centre bi nga xamante ni nekkoon ci mairie bu Wakaam daanaka tardement lañ fa nemmeeku li ko war a lekk ñàkk déggoo ci ñaata bureau ñoo fa war a am beneen bi nga xamante ne nag euh, nekk ci la poste euh, bulletin yi ñoo doyul woon euh, ci laaj bi nga xamante ne nag dañ koy samp soxal bu dee centrale syndicale yi liggéeykat yi amatuñu yaakaar ci ñoom diit la ñu daal di wax ndaxte bu ñu sukkandikoo ci ñoom liggéeykat bu nekk dafa war a am syndicat ndaxte yooyu la fédération ñooy dox diggante liggéeykat bi ak ki mu liggéeyal ci fukk ak ñaari central syndical yi samp seen dënd ana euh, kan moo nar a jël raw gàddu gi ba di teewal liggéeykat yi lu ci mënti am yaakaar nañ ñi résultat yi du yàgg ndaxte ñi demoon sànni seen xob bari wu ñu woon